ay bëñam dañoo wàccoon. am ñoon ay bëñ. waaye fi nekk nii nee nañu nit ñi nekk ci ginnaaw rek montel nañ ko wutal ko ay prothèse def ba mbaax. pour mu xeex rek contre Babacar Ngom. waaye Guy mari Sagna nag nee na gis nga Babacar Ngom ma deful dara luy nuroo illégalité. lu mu am lépp lu légal. Ah! parce da ko jaaree da ko jaare ci commune. yéeg ba ci kaw ci impôt et domaine ba ci am dëkk rek. waaw mais kan moo ko jox waaw mais Babacar kan moo ko jox kayitam ba pare ba pare euh, parce que kayit yi xam lan lay tekki. Euh, mi ngi tekki titre foncier mooy droit de euh, propriété privée daf lay jox li latin yi naan l'usus fructus et l'abusus. non. <laughs> siré waaw li nga waxee bu ñu ko tënkee mooy xëcc <laughs> le soleil yéen i kaay ñëw ñun ci séminaire gouvernement bi on ko amoon ci week-end mm-hmm. président Macky Sall daal fi mu nekk nii mi ngi pressé gouvernement bi pour ñu commencer recrutement yi ci biir semaine bi waaye ñoom xanaa duñu ma recruter dégg le quotidien yéen i kaay ñun ci xuloo xiiroo ŋaayoo Parcelles Assainies Mbaye Ndiaye mii directeur structure partie bi moo ne Amadou Ba xanaa xamoon naa fekk yi ak noon yi ñu ngi ci jege ñaale yi. ne ci mbokk gi ne ci dëkkandoo kon defal attention ci ñi lay ubbil ay combat di la dugal ci ay xeex commencé yedd amadu Ba ne ko wax naa la ko en privé danaa la ko waxaat tey ci biir mbooloo bàyyi ñii di la dugal ci ay affaire yu jàppal bàyyi waaw affaire xëcc dégg nga Ba ne ko mbay ba mu ne ko naa mu ne ko adada bu dee yaay njiital structure parti bi mais le parti n'est pas bien structuré est-ce qu'il est sax structuré booy benn ñaar xam naa ne nag ku bëgg a makki nga déggoo ma de waaye may ma rek nag ma kujje concurrencer la si sa bëgg a makki boobee wax tu vas me permetre de te concurrencer auprès de Macky waaye boo ubbee ci biir journal bi lire fi phrase bi commencé foofu loolu la wax xam na ko ne ko ku bëgg a makki nga waaye may ma nag ma wujjeeg yow ci bëgg boobu nga bëgg a makki muy benn ñaar parti bi tamit il faut moom ay jàppal bàyyi waaw mënta ñàkk sax politique moo bindoon noonu ah, waaw frustration jàppal bàyyi en tout cas xuloo ba daal door mhm. mbay nee na ko wax naa la ko ci biir néeg tey dama la ko wax ci mag de kenn du ko ne ko mag du ko yedd ci biir mbooloo yow it naa la xamal lu leer bàyyi ñu defante mhm. man la Macky dénk parti bi fii ci parcel loolooy sud ba de la DER li ñu doon wax tey la tey. waaye nag xëcc bu xëcc bu xëcc xëcc xëcc xëcc ñi doon wax naan xaw ma Pape Amadou Sarr DER xaw ma képp xam ne laal nga ci DER bii Macky nee na tur yëpp nañ ko taf.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 du Diarra moom transhumé na moo taxaw fële ne Macky Sall ñi la fi jiitu yëpp yaa leen mën Amadou Diarra wax loolu nit ñi naan kii xanaa dafa bëgg a dem pale la ndogoo démb délégation cent cinquante personnes imam ak ay kilifa ànd ak timbo wane na carrément dem na dem na non dem na ca yàlla moo ma jaaxal Cheikh Omar Talla ana nga kaay wuyu waaw kay exclusive gi nii dégg nga loolu bi nee nañ kër Ndiaye loo jam ñaajo jàllu nduxura ak ay goxi goxi gox ñoom daal nee nañ d'accord nañ parce que nag lii di sangal kam kat lañu ñu ko xëccee woon ci moom moom lañ ko delloo am na nag ñoo xam ne mer nañ ba taal ay pono siré doyen des juges Samba Sall kan moo koy wutu ah, day na waar gaa ñaa nga xeex ba tam mën a ñoom dafa yàgg ci wutu gi. ah, ah, ah. am na ku ca nangu toog. Ah, ndax ma ne ndax am na ku ca nangu toog nag. évidence ñëw ak ci coowal exploitation minière baa ngi nii. tey moom presque nekk na ci ay journaux yu bëree bëree bëri njiital leeral askan wi gis nga ko nii la mu jàpp daal mooy directeur yu ICS ci boppam war nañoo wax ci ay mbiram nag. enquête yéen kaay ñëw ak ñun ci Benno Bokk Yaakaar miy attaqué ci audit fichier beeg parrainage beeg ñoom it seen ñoom daal jàpp nañ ne lii auditeur yee def daal vraiment experts internationaux yi jaar nañu te parrainage bi tamit waa CEDEAO nañ dem toog dégg nga loolu 24 heures ñëw ak ñun ci Amadou Diagne ngi nii nee na découpage bi nag pour administrateurs yi jege les administrés la nekkul pour politiciens yi waaye pour askan wi la dégg Dakar Times ñëw ak ci. lu tolloog mille cinq cent junni ak juróomi téeméer ci ay liggéey liggéeykat boo sàggane nañ dem chômage. bëri na te lii lépp ñu ràccal indien yi rek ci carrière ba daaru xulóos fële mi ngi nii mi ngi nii. directeur général Alassane Diallo daal moom moo toog jël ab dogal maanaam indien yi daal boo bëggee dégg-dëgg. ana kii bi direct news bi nekkul. léegi ñu moom Siré xëcc leen. ah. Hmm? Siré na leen xëcc. ndeysaan pourtant gis nga euh, ICS. waaw euh, industrie bu. waaw kay fleuron la jox ma jox ma jox ma mooy. fleuron la woon. Hmm. Siré. waaw Siré jox ma direct news bi gisuma ko fi. fleuron dëgg la woon. Siré gis nga li ñu doon expliqué keroog. Hmm. la ville de Dakar enterrée. et trois nouvelles villes naissent. ñetti ville moo juddu. ñaar yi ma la joxoon mooy ville bu Yoff. ak ville bu Grand Dakar. ndeke Macky Sall mi ngi ñëw ak ville bu Colobane. yéen waa Yoff seen ville bii commune yoof la Parcelles Assainies Grand Yoff Ngor Wakam ak Almadi mhm. Grand Dakar commune Grand Dakar Biscuiterie Sicap Liberté Dieuppeul Derklé HLM ak Hann mhm. ville bu Colobane commune Colobane la Fass Gueule Tapée Médina Plateau Sicap Mermoz Point E ñoom yaas ki la ñu bokk mhm. Macky xamala la ragal dafa perdre dafa tiit ragal a perte capitale parce que Abdou Diouf ak Ablaye Wade yëpp xoolal local yi ñu mujjee tàggoo bi ñu perte seen capital lan la leen jural ca présidentiel. ba pare sax euh, président Macky Sall fii ba 2024. waaw bëggul benn tête bu émerger te bu mairie Dakar bis bu ñu ko amee ci seen camp ñaari mën a am ñu def élection ñu dem ñu duma leen boobu c'est grave wala ñoom bu ñu demee bu ñu gagné day am beneen pôle bu génn. mais c'est un couteau à double tranchant mais c'est couteau à double ah ku. émergence gii muy woote te nee na moom kenn du émerger moom mooy yàlla. man nañ daanu ñetti yoon nit ñaa ngi émerger ah ci li ñu nekk boobu. Mm-hmm. te lee ñu nekk it danañu xëcc. <laughs> barke yonent bi xëcc eh. xaw problème mu mag yëpp na ko tëgg rek. si de. na ko tëgg duma. Mm-hmm. bu ko tëggee ñu xëcc ko. waaw oui ku mën sa morom duma. bu ko bu tëggee. Mm-hmm. bu ko tëggee ñu xëcc ko. te olof yi nee nañ yàgg yàgg yàgg xëcc. waaw ci lu mu mujjee.